tey euh, programme de vaccination bi ñu organisé fii dama ko organisé ak concours comité d' entreprise républicain bu APR bi nga xam te le docteur Babacar Toumb bi nekk sama wet nii moo ko dirigé. ñoom nag dañoo commencé benn tournée bu rëy dañoo def tourne bu rëy biir Sénégal que démb rek ñu ngi woon avec le maire Timbo dem Guédiawaye ak le maire Aliou Sall. ñu ñëw nag di ko clôturer fii si biir commune bi Sicap mu nekk honneur bu mag pour ñun ñuy clôturer tournée bu rëyee noonu ñun ñu ñëw recevoir leen fii moom ak délégation ma ànd fi ma ànd fi ak euh, sama ay euh, responsable au niveau de benn Bokk Yaakaar ñi ciy jàpp ñi nga xam te ñoo fi taxawal le président Macky Sall léegi nag euh, tey ñu def sensibilisation boo xam te dañuy ñaax nit ñi pour ne bien que feebar bi mi ngi wàññeeku mais nañu fagaru toujours na nañuy sol masque yi nañuy diwo gel yi nañuy raxas loxo yi tey la ñu war a gën a téye gën a protéger wu contre la maladie parce que comme que ñu ngi koy xeex maladie baa ngi a ñu wàcc wàcce bàyyi loxo yi nañ ko gën a xeex. ñu ngi vacciné woo au niveau de centre de santé bu Liberté 6 a poste de santé bi nekk Liberté 2 nit ñaa ngi vacciné woo foofu te ñu ngi vacciné bu baax mais nag ba léegi des na. ba léegi des na parce que dafa am publicité boo xam dafa jaaroon yéen ñëpp xam ngeen ko di wax nit ñi vaccin yi wóorul ak yi wóorul mais nit ñi nañ xam ne feebar fu mu am mbax fu mu am ci àdduna muy fièvre jaune muy rougeole mu choléra yooyu yëpp vaccin moo koy dindi du leneen nañu nit ñi dem ñaxu ji nañu ñaxu ji ñaxu bi mettiwul vraiment te vaccin yaa ngi fi y qui sont ici Sénégal yoo xam te gars yi ba léegi jëriñuñ ko nañ ko jëriñoo am na sax benn jour ba président xaw a mer naan gars yi bu ñu ñaxuwulee day jël affaire dem maye ko xam naa xolam moo tàngoon rek mais nan nit ñi dem ñaxu parce que boo ñaxoo tey boo boo demee tey di voyager yaa ci dans le monde doo dugg bu amulee euh, vacciné wu donc vaccin bi c'est important na nit ñi vacciné wu comme ça ñu mën a conserver suñu bopp protéger suñu bopp protéger suñu ay waajur parce que ñun en tant que feebar bi mën nañu dugg fekk du ñu daane mais boo ko amee dem seen kër sa yaay wala sa papa wala sa maam koo xam te yow yow ni nga dëgëree moom dëgërewul noonu boo ko wàllee loolu feebar bi mën na jël bakkanam moo tax si important il faut ñu fagaru moo tax tey daal ñu ne woon dañuy ñëwaat encore ñaaxaat population bi wax leen na ngeen respecter les mesures barrières di sol masque yi di diwoo gel yi di respecter la distance yooyu yëpp quoi c'est très important bu ñu bàyyi suñu loxo. nañu continuer feebar bi ñu koy xeex ba reculer na ba tey ñu ne Sénégal mooy deuxième dans le monde ci ni mu xeexee feebar bi kon nag nañu ñu bàyyi suñu loxo. bi lan ñu am les vaccins. alors cible bi mooy mag ñi d'abord ñi nga xam te dañoo mag xam te feebar bu leen duggee rek mën na leen daan léegi ah ak ñi nga xam te dañoo yor ay jàngoro comme ay diabète ay tension ak yooyu ñooñu pratiquement. ñëpp ñaxu nañu pratiquement ñu ci gën a bëri léegi ñu si def mooy ñeneen ñi maanaam jeunes yi ak moo tax ñuy wax jeunes yi nañu dem ñaxu ji na ñëpp dem ñaxu ji ci daal c'est tout le monde te ñun tamit ñu ngi leen di remercier baax a baax ni ngeen ñëwee couvrir événement bi kontaan nañ trop si yéen yàlla na leen fay. d'accord merci beaucoup